moo gën sama far wu baax wi. moo gën sama far wu bu baax wi. Mm-hmm. déjà euh, sànq am na question yu ma laaj Maya. Mm-hmm. mooy féministe dama bëgg ñu leeralal ma. Mm-hmm. lan la ñuy lan la lan la ñuy xeex. parce que am na Sophie droit yu mu fi wax yooyu yëpp passé nañ ko. loolu passé nañ ko loolu ñëpp xam nañ ni. Euh, euh, piété tax ñuy wax. maanaam suñu diine jox na jigéen lépp. mais coow li lan la. coow li lan la. coow li moom mooy xam nga coow li lan la. Hmm. liberté. liberté la ñu bëgg. waaw. loo tuddee liberté. waaw très bien mooy li ñuy wax lii nga xam ne mooy buumug njaam gi ñu wax nii góor ñi dañ koo tënk. Hmm. maanaam dañ koo takk jigéen ñi. <laughs> buum yooyu la ñu bëgg a tekki. Hmm. xam nga ñun ñëpp d'accord nañ ni bu nee góor moo war a solal euh, jabaram. moo ko war a jox lii lépp moo ko war a jox. loolu problème boobu rek la nañ ko ba pare. léegi nag mu des jigéen ci boppam ban rol la war a jouer. léegi nag gis nga rôle yooyu parfois moom la ñuy xeex moom la ñuy bañ. dañu <laughs> waxante dëgg rek. <laughs> gis nga boo gisee parfois ah, suñu baat suñu nangam suñu nangam yéen baat. yan baat yan baat la ñuy laaj. ba baat ban liberté la ñuy laaj li li liberté wax léegi mais loolu mooy loolu mooy dëgg. Mm-hmm. ñu dañu am ay réalité yoo xam ni. Mm-hmm. gis nga fi mu ne nii. Mm-hmm. li xew ñëpp xam nañ ko. lépp woddu geeg musóor geeg solo léeg yëpp comprendre nañ fi ñu jëm ak jigéen fan la. lépp xam na mais dafa am jigéen ñoo xam ne ñoo opté wul pour dem ci loolu. ñun danoo bëgg suñu borom kër yi bu ñu wàccee la ma doon wax keroog ñu bañ ko bu ñu wàccee fekk ñu ci kër gi ñu toog nekk ay jigéen yoo xam ni ay yaay la nekk mooy ay jigéenu kër dàq ma ba tey jigéen liggéey parce que man fa ma ne maa ngi yor sama entreprise ci kër ga di liggéey di liggéey mm-hmm. mais nag sama jëkkër bu ñëwee day fekk maa ngi toog di ko xaar mm-hmm. maa ko war a toggal jox ko mm-hmm. maa ko war a attaayaal jox ko mu naan mhm. ay yére maa war a xool ndax tilim na wala tilimul mhm. te lii man am na ay jigéen yoo xam maa ngi gis ñuy défendre cause féministe da dañ koo dàq am na jigéen boo xam dañu waxtaan mu ne Seyda ma ne quoi mu ne man maay liggéey ci kër ga mhm. su ma xëyee fajar laay dem bàyyi waa ji mu tëdd mooy liñ doon wax léegi waa ji liggéeyul may dem liggéeyi may fay courant may fay ndox may joxe dépense waa ji liggéeyul avec saa mu bëgg suma wàccee ma ma tegal ko añam ma ma ma attaayal ko ma ma ma raxasal ko ay tànkam. astafurlah. <laughs> jigéen la moo ko lii de parce que moom day liggéey jëkkëram liggéeyul. Ah. est-ce que xam nga de yàlla muy séddale. Hmm. jigéen mën na am sens liggéey nga am jëkkër nga ëppale ko salaire loolu dafa am. Hmm. mais sa salaire boobu est-ce que danga koy def arme. Mm. est-ce que sa liggéey boobu da koy def arme. Mm. est-ce que sa bureau bi rafet boobu da koy def arme pour di ko xeexi sa jëkkër. Mm. déedéet. Mm-hmm. foofu nag parfois fa la jigéen ñi di daanoo ci cause boobu nga xam ne moom la ñuy défendre liberté liberté ma ni ko yow sa jëkkër bu la bàyyiwuloon est-ce que xam nga sa jëkkër bu la newoon bul xëy liggéey alima bul xëy bul sa tànk bu mu tegu ci buntu kër gi dem liggéey bu dee am nga kilifa laa wax de. Mm-hmm. xawma nag bu nekkee da nga jëlee yeneen i droit yoo xam ne ma anzalallahu biha min sultaan ñun xamuñu ko. waaw dama ni boo xëyee laa wax di liggéeyi génn sa kër sa jëkkër ni la sa tànk bii. Hmm. bu mu tegu ci buntu kër gi. Hmm. su nekkee am nga kilifa laa wax. Hmm. say waajur am nañu kilifa. nangu bëgg nga bëgg nga lu baax. li yoon mooy nga toog. mais góor googu mënul lool lool mooy yoon. góor googu mënul lool alima. alima alima Ndione alima Ndione. waaw papa góor googu mënul loolu ndax dafa am lu ko ko xañ. ndax nee nañu képp koo xam ne mënoo koo régal munoo koo réglé. ma daaneel foofu. koo du régal koo du régal daal na mënoo koo réglé. ko am kilifa la wax de. gis nga li non <laughs> côté boobu laa rek mais am na fi ay jigéen yoo xam te ah, lu dee ci seen i kër ñoo ko ñoo ko rey. ba pare aw ci yoon. man gis naa jigéen yoo xam ne waxuma la kër ga mais wujjam dépense ba fay dem moo koy jox jëkkëram. Mm. mais ba léegi wujjam xamul ni dépense bi moom moo koy jox jëkkëram mu koy jox. te pourtant am na lu mu war a am yëpp. am na mais ba léegi mi ngi nekk am xadija nekk ci suuf jëkkëram. Mm. xamal ko ni ko baat bi yaa ko yor. gis nga baat boobu tey moom la ñu xañ góor. mais nu ko jëkkër ji def ba muy def loolu tamit. lu ko jëkkër defee. Ah? maanaam nu ko nan la ko jëkkër ji téye. waaw ba ba mu jaral ko sacrifice yooyu yëpp. Mm-hmm. non eh. nekkul rek xam nga tey nii ñoo ñoo. def non Alima del del del laaj. Mm-hmm. nekkul ku baax rek ngay liggéeyal. mu mm-hmm. doon baax rek ngay liggéeyal mu neex. bu doon jëkkër ju baax rek ngay liggéeyal. Hmm. Hmm. kon mu neex. ki bon dëgg dëgg moo neex liggéey. ki bon dëgg dëgg ngay liggéeyal. moo kooku nga war a liggéeyal. parce que tey boo nee man damay liggéey. Hmm. sama jëkkër liggéeyu. man baat bi maa koy yor. mais mais jigéen dafa war a sax ruus loolu. gis nga li kii wax loolooy dëgg de ku sóor sa jëkkër yàq say doom. te gis nga góor ñi nga xam ne sax ñi ngi ñi ngi bokk ci ñi défendre cause boobu. bëgg nañu seeni jabar di leen toggal. bëgg nañu seen jabar di leen naan di jaay di leen tarbiyu amul góoru Sénégal bu bañ loolu nañ waxante dëgg mm. bokk na ci ak jigéen ne nga yëg ne yow mii doo góor mais jigéen nga dama koy wax chaque jour dama naan même jigéen ñi nga xam parfois da ngay gis am na ñoo xam dañuy xeex cause boobu wat seen bopp yu xuuf ko ba mu nekk ndem mm-hmm. mu ne sol tubay wat seen bopp xuuf ko ba mu nekk daal di sol tubay daal di ne dootuñu sëy sol tubay laa la wax dootuñu am borom kër nga xam ne waa ji su wàccee góor lay fekk ci kër a garaaw ma nga fekk yaa nga xam sa bopp. ne dootul yaa nga sol tubay. yenn mhm. sax nga dóor ci kap bu ñëwee mais yaa seeda loolu est-ce que du style style d'habillement rek. lu doy waar la nag. lu doy parce que ji góor bi su wàccee bu xam ne jigéen a ngi ci kër gi. il foog nga saf jigéen daal boo fekkee ci kër gi ah, yenn saa yi nga fuddoon loxo yi ba mu xonk baa mu ñuul. Mm. takk fer. takk ko ñu xam ah. ne yow mii jigéen nga waxuma nag muy yóbbu de fer per déedéet waxuma muy yóbbu. bi ñu fer yi di wut sa jëkkër di waaj loo ci fer sa kër kër yi laa bëgg a xam. sa jëkkër lu ci ay peer fuddanu lañ ne. peer daal ñu def fi jigéen. dégg nga fuddanu léttu. Mhm. sol yëre yi jigéen nga xam ne ku la xool xam ne jigéen nga. billaahi toog xaar sa borom kër mu ñëw. ñu bàyyi jean yeeg lacoste yeeg ah. t-shirt yi. dañuy góor sax ñu teg ci casque. bari na ay sëy yu tas yaa koy lu mm. fekk góor ci kër gi mais jigéen la fekk. yaa sëy daan ñaareel ba su ne ko piip mu ne ko piip. parce que da ngay liggéey damay liggéey lu ñu wax tollale. égalité égalité. lu ñu wax tollale. égalité de genre dañoo nuroo mais duñ tolloo bi ilaa yombi diin. façon bi ñuy bindee benn la. bi ñu yàlla créé muy góor ak jigéen benn la jigéen am droit jàng. kontoon na sa bopp. jigéen am droit jàng. Hmm. jigéen am droit ñu may ko jàmm comme li fi doon wax. Hmm. jigéen am droit ñu yilif ko yiir ko loolu lépp jigéen am droit. Hmm. mais nag dafa am loo xam ni eh, yéen a koy xeex. mais Sénégal gii pareegu leen pour pour pour pour gagner combat boobu. parce que nit ñi ñoo ñun jigéen ñi sax waxuma la góor ñi de. mais ñun jigéen ñi ñoo parewul. Mhm. am na fi ay dëkk yoo xam ne am na ay femmes féministes yu fa demoon mais dañoo daw. dañoo daw parce que ñooñu bi ñu ñëwee comprendre nañu ñii fi ñu leen jëmee damay wax ne nag réew moo xam ne tey jigéen ñi say tatas ñu ngi fi nu xuus. Mhm. boo génnee fii konteel jigéen ñi ñi sëy tatas ñi ngi fi nu xuus. célibataire yi amul jëkkër nag waxuma la nu ñu toll ci réew mi waa ki toog ci ci ci këram jëkkëram amul dara mu ne d'accord damay muñ jëkkëram ñëw gëdd ko mu ne damay muñ am maam jaara lay doon am maam faawaat di wele lay doon hmm. jëkkëram ñoo di ko teg yu metti mu pare pour muñ ko hmm. yow nga ne ko bul ko muñ génnal mbaa càgga ji du bari ci réew mi noonu la ñuy def dama ne mbaa càgga ji du bari ci réew mi hmm. moo tax jigéen ñi dama leen di wax ni leen nañu comprendre bu baax la eh, eh, ah, discours yi nga xam ni mi ngi mi ngi te boo ci xoolee ñu ci bari nag amuñu jëkkër. dëgg la waaw ñi nga xam ne dañoo parce que kilifteef la ñuy bañ ku leen yilif. yaa Seyda yaa Seyda la ñuy bañ yaa Seyda parce que jàng ñi nga xam ne si joxe ay ay ay ay naan la tasal bul bul muñ lii bul tete ñu xam ñu nekk ci biir dama ni la da ngay gis jigéen joo xam ne day jàng ñu naan duñ la wax duñ la wax yoroon comportement pour prospère wala papa ngoone ñëw takk la de déedéet dañu naan gëmal sa njàng mi ëllëg moo lay yor gëmal sa bopp loolu ñu sa bopp mais loolu mooy dëgg nga nekk di jàng loolu mooy dëgg yaa Zeyda d'accord loolu mooy dëgg ñaata ay femme nañ leen bàyyi ñoom ñaar ñaata ay su fekkee ne mun naa am occasion gis nga ay femme ma yaa fi gis tey ñu yor alal judul jeex mhm. yor ay ay ay ay ay kër mhm. yor ay oto mhm. mën mais amuñu jëkkër c'est parce a dàq nañ seen jëkkër njàng mi la ñu jëloon def ko seen jëkkër jàpp na njàng moom moo leen di yor ëllëg hmm. daf dafa am loo xam ne yàlla moo ko moo ci ci ci jigéen moo tax loo gis dañuy dugg ci jàkka yi naan leen est que du ngeen koo xam ne falaay loo ko sama buum ak hmm. Hmm. dugg ci ay xale yu ndaw di mujj di def yu ñàkk fayda parce que euh, fi ñu waroon euh, defaree seen àdduna dañ koo passé am leneen loo xam ne moom la ñu gëmoon kon yaakaar naa ni cause bi nga xam ne tey ñenn ci jigéen ñi ñu ngi koy défendre naan suñu àq ak suñuy yelleef dama jàpp ne man Seyda loolu naxee mbaay nax ñun li ñu bëgg mooy di toppatoo suñu jëkkër yi hmm. di leen fóotal di leen paaseel seen chemise yu dagg yi ñu di ko defar di leen nemmeeku di leen xool di leen nab nabbee bu ñu feebaree ñu feebar suñu meeree ñu mer suñu ñu muñ yaa Seyda yaa Seyda je sais pas lu waay am na xaw ma ba xam xaw xam da nga active trop ci réseaux sociaux yi hmm. mais li ñuy dégg nii yëpp on sent nettement que loolu tamit am na ci benn impact bu négatif c'est-à-dire jigéen ñi lu ñu dund rek suñ ko yóbboo ci réseaux sociaux yi seen i moroomu jigéen li ñu leen di njëkk a wax mooy Euh, da ngaa ñàkk fayda doo fa mhm. doon xaaree loolu góor daf lay jalal yenn nii am nga famille am nga lii am nga lii am nga laa lan moo la feree liggéey mais dafa la ko war a jaral gars yi dañ koy wax dafa la ko war a jaral dañ fay toog dafa la ko war a jaral ñoo amoon sa place comme comme bu ñu la doon xool dañ lay ñee moo tax ñu lay wax yooyu dafa la ko war a jaral sëy bi dafa la ko war a jaral euh, dama yaa Zeyda da nga sëy bi dafa la ko war a jaral waaw alhamdulilah prospère bëgg naa nga ñëw alhamdulilah après ma yaa dafa nangu laal yaa Zeyda da nga wax ba pare nga contredire sa bopp ah. je m'explique da nga njëkk wax nga ne bañuñu góor bañuñu jigéen liggéey nga ne yow da nga am entreprise sa biir kër. Mhm. liggéey nag moom. Hmm. liggéey rek la. d'accord yàlla mun na def nga nekk jigéen am liggéey ki boo xamante si ni da lay mettre ci situation boo xam ne da ngay guddee wàcc. Mhm. situation boo xam ne da ngay tukki.